ci sunu darse bi aju ci wàllu adkaar ci sunu téere boobu di xisnul mumin bu a cheikh al iriani xafidahu llahu taala bu ko defee sunu bindu tey bi daanu dikk ci buntu bu am solo te muy fadlu la xawla wala quwata illa billah ngëneeli la xawla wala quwata illa billah moom boroom bi mu daldi indi ci buntu boobayee ab xadis te muy xadisu abu musa al ashari من يونت عليه الصلاة والسلام دفع وخني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة خنا دمال تكتل يو أبو موسى خنا دمال تكتل تندب لو خمني ميجبوك تندب الجنة قلت بلا نينا منيكو أحكي لولا كي يتي وناكو تكتل مكو قال منما قل وخل لا حول ولا قوة إلا بالله من يننت عليه الصلاة والسلام دالنكو وخل لا حول ولا قوة إلا بالله كون سنو يننت عليه الصلاة والسلام دالنكو يتكتل لنغا خمني موي لا حول ولا قوة إلا بالله te muy wala bokk te mu bokk ci ndàbb yi nga xam ni ndàbbi aljanna la maanaam trésor te muy <clears throat> alal joo xamante ni nii ju dajaloo lay doon ju am dayoo maanaam ju am valeur doon loo xam ni day dajaloo nga xam ni léegoo léeg nit ki mën na koo wëri jëfandikoo ay tegtal ba àgg ca wala boog mu doon loo xam ni sunu borom jalla wa ala dana ko feeñalal jaam bi te sax amaana xëy na jaam bi jubluwul woon ci wari ko leneen la doon wuti sunu borom dajale koo ak ndàbb daal di koy feeñal ca kanamam lum ci mën a doon trésor bu dee trésoru àdduna mooy ndàbbi àdduna yi gis ngeen xëccoo bi ci nekk ak yitte yi nga xamante ni nii moom lañ ko jox ak it lañ cay dépassé di ko ca def pour mën caa jot waaw kon fa kay fa nag ndàbb loo xam ni moom ca ndàbbal àllaaxira la bokk ci ndàbb yi nga xam ni mooy ndàbbi aljanna kon loola wax dëgg moo gën a laaj ñu sonn ci moo gën a laaj ay yitte def ci yitte jooxe ci coono bu bare bari pour mën a jote ca ndàbb yooyee waaye gis nga yonent alayhi salaatu wassalaam nee na la bokk na ci ndàbb yooyee laa xaw la wala quwwata illa billah kon muy kàddu goo xam ni kàddu gu màgg la di kàddu goo xam ni kàddu dimbandiku la ba ngoog kalimatu istiaana la noo ne la ko cheikh al islaam ibnu taymiya رحمه الله تعالى وخي من وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة من مم لا حول ولا قوة إلا بالله كد لغو خمني كد دمبني كلك Kaduk sakku ndimbal sakku ndimbal ci kan ci borom bi jalla wa ala rot na ci hadith hadith bo xamni ni abi hurayra moko solo hakim دال ديكوي ген يونت عليه الصلاه والسلام دي واخنان اذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله قال الله اسلم عبدي واستسلم من سما جامبي بوخي لا حول ولا قوة إلا بالله لولا بوكا وخي وني سنو بروم دال دي أدو دال دي وخ بروم بي جل وعلا موم داي وخ سايو كو صوبي أك نم كو صوبي آه، أك وخ ملولا نيال بروم بي جل وعلا موم mu ne sunu borom ne sama jaam bi de wommatu na jébbalu na aslama jébbalu na daldi wommatu wastaslama loolu nag ak mu baalaxa maanaam ak jotal ci jébbalu jébbalu dëgg nga xam ni jaam bi day àgg ci dootul gestu la nga xamante ni nii moo ne fa mbindeef yi waaye daal day doon koo xam ni jël na mbir yépp jooyal ko jëme ci boroomam jël wa ala moo tax kon kàddu gi boo xoolee la muy wundu kàddug la kàddug joyal mbir yi delloo mbir yi ci borom bi jàlla wa ala di sàkku ci moom ndimbal moom borom bi jàlla wa ala nga xam ni pexe ak kattan amut lu dul fa moom maanaam daal jàmbi doonut koo xam ni dafa yor ay mbiram manam yor len len ci ay mbiram amut pexe ben yoon ci dello ab lor amut it kàttan ben yoon ci xëcc njariñ ludul ci coobare borom bi jàlla wala la hawla wala quwwata illa billah kon gis nga kàddu la goo xam ni loola lay wundu loola it lay tegtale maanaam ak dimbandiku sàkku ndimbal ci borom bi jalla wa ala joyal mbir yi jëme ci borom bi jalla wa jël mbir yëpp wéer ko ci borom bi jalla wa ala maanaam bi daal lu doon koo xam ni day sukkandiku ak di wéeru ci pexey boppam ak dooley boppam ndax xam na ni yooya du dara ndax xam na ni yooya du antu lu dul ci coobare borom bi jalla waala mu jël lépp kon daldi jébbal boroomam wéeru ci boroomam sukkandiku ci boromam di sakku nak ndimbal ci borom nango sakku ndimbal ci boromam boromam defal ko tawfiq bango defal ko tawfiq manam ak jappandal ak dëppatle dimbaliku dafa bokk ci maqaama yi nga xam ni xeetu jaamu yi nga xam nii dañoo màgg lool dañoo màgg lool ba gis nga na mu dikkee ci alquran ca suuratul fatiha toftale ga nga xam ni borom bi jalla waala toftal na ak dimbandiku toftal ko ci gannaaw ak njaamu iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yenn ci waroom xam-xam yi ne toftale googee la ca nekk ci xikma bokk na ca jaamu gi ñu war laa jaamu du sunuy pexe du sunu kàttan raaytum ma ngoog du ci sunuy pexe lañ koy taxawale du sunuy kattanit lañ koy taxawale ci sa ndimbal kepp yow allah subhanahu wa taala yaa ñuy dimbali yaa ñuy taxawu ba nu mën laa jaam kon gis nga maqaama boobu li mu làmboo ci toroxlu li mu làmboo ci suufe-suufelu li mu làmboo ci wàccee sa bopp ba ñu gis sa bopp bañ a gis sa dara ndax julli ya ngay julle koor yu ya bari yaag gis nga tawhid bu leer baag xam-xam bu yaa baag loolee lépp du say pexe bopp du sa kàttan ak bopp bu boobaa gis nga kon da ngay doon koo xam ni dangaa joyal mbir yi borom bi jalla wa ala waaye nga wëlbatiku doon koo xam ni doo doa ñeneen ñi doo leen yoon waaw doo leen xeeb mukk loolu gis nga dalay won pas bu wér na mu lënkaloo jikko ju rafet waaw bu fekkee yaa ngi xeeb nit ñi rek ak réy-réylu ci dëgg waxuma la xoolaatal sa jikko mais xoolaatal sa pas-pas xoolaatal sa tawxiid waaw xoolaatal say ibaadaat jaam dëgg boo xam ni wommatul na borom bi jàlla wa ala du ko xamni day gis bopam du ko xamni day yek bopam du ko xamni day xeb minde fi du ko xamni ni day reey rëylu du ko xamni day delo deug kon kàddu gi li lay tektale ak li lay wundu ndax nu bàyyi xel ne waroom xam bi dañ koy wax ku mel ni Cheikh Abdou Razak dafay wax mu ne faawu jullit bi xam ni ci zikr bépp zikr bu mën di doon dafa war a doon koo xam ni day xam maanaawu zikr boobee loolu dalay wan nekkoon bu ñu lay jox zikr nañ la jox zikr boo xam ni maanaa ja xam nga ko wala booy jël zikr jëlal zikr boo xam ni maanaa ja xam nga ko ndax bu ñu la joxee loo xam ne xamoo maanaawam mën naa doon turab jinne lu jox la ko nga jël ko gis nga ndax lan jële nga ko ci ñàkk xam moo tax gis nga ñàkk xam dafa dangereux waaw lor bu rëy la ñàkk xam daa un qatil mango même bu nekkul turab jinne sax zikr ba ngay jël na doon loo xam ni jàng nga ko ba xam ko mangoog nga xam ni dangay tënk maanaam dangay wattu jàpp bu baax maanaawam ak la muy tegtale mangoog moo tax mu ne is bi zalika yu'ti dhikr thimaarahu wa tataxaqaqu faidatu wa yantafiu bihi dhaakir mu ne ndax ci loola ci la zikri bi di meññee dund ga nga xamante ni nii mooy dund ga nekk ci zikr xam nga zikr moom la ca ne ak dund la rotoon na ci xadis te romboon nañ ko misaalu ki nga xam ni day tudd boroomam day zikr ak ki dul zikr dafa mel ni misaalu kiy dund ak ki nga xam ni mooy ki dee xam nga ñaar yooyu bokkuñu soree nañ lool kon zikr ak dund la kon meññente nekk ci zikr ca noona lay foccee ci lay génne ca lay ñore njariñ ya ca ne it ca lay doone loo xamante ne nii lu am lay doon lu taxaw lay doon bu ko defee nag kay zikr ci lay ciy jëriñoo ndax bu boobaa làmmiñ baa ngi tudd loo xam ni xol ba téye na la muy wundu la muy tegtale ak la muy tekki bu ko defee nag ak àndandoo day am xol ba ak làmmiñ ba làmmiñ baa ngay yëngu di wax xol baa ngay yëngu ci maanaa boobee nga xamante ni nii mooy ba nga xam nii moom la làmmiñ di wax maanaa kàddu yooyee kon loola lu jar a xel la kon kàddu gi nga xam ni mooy laa ilaha illa kàddu la goo xamante ne nii gu bari njariñ lool bokk na ci ni mu rotee ci xadiisi abu abu musa al asari bi ndàbb la ci ndàbbil aljanna yi maanaam trésor la bu bokk ci trésor yi aljanna yi kadalika bokk na ci ay ngëneelam moom ak yeneen kàddu yi nga xam ni ay zikr la na mu dikkee ca Abu Daawud ak Nasaa'i ak ñeneen bawoo ci ibn abi awfa radiallahu anhu mu ne jenn waay dafa dikk ci yonant bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko man de wax dëgg yonant bi jéem naa ba sonn waaye de am nag tële lool ci njàngum alquran waaw jàng naa ba sonn léegoo léegoo léeg ku yàgg a jàngale léegoo léeg da ngay dajeek ñenn nit ñi ndeysaan da dangay gis effort yu rëy lañuy def ci njàng waaye mbir mi daal du yomb ci ñoom léegoo léeg day am mu dañ koy def ndeysaan waa ji moom gis nga nëbbatuwul gis na jafe-jafeem gis na koo xam ni jàpp na ni xëy na warom xam-xam la boo xam ni mën ci indil ay tegtal te muy yonante bi alayhi salatu wasalaam mu dikk ci yonante bi wax ko ne ko daal sama jafe-jafe lii la jàngum alquran daal mooy sama jafe-jafe mu ne ko léegi nag ah ndax mën nga maa jàngal loo xam ni dana ma doy bu ma la rëccee tamit ma jàpp ci loo xamante ni nii ah danaa ko mën a doy lo? ba war caa mën a ay ngëneel loolu bu baax mu ne yonante alayhi salaatu wasalaam ne ko da ngay wax subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah kon gis nga kàddu ya tasbix taxmid tahlil gis nga mu dolli ca lan la hawla wala quwata illa billah mu ne waaja ne ko waaw daal di ngëb loxoom ne ko lii sama boroom la ñeel man nag lan moo ma ñeel haza lillah fama lii yonent ne ko da ngay wax ni allahumma xfir li warxamni wa aafini warzuqni wahdini waja ngebat benen loxo ba muy benen ténq ba yonanta alayhi salaatu wasalaam ne amma hada faqad malaa yadayhi bil khair yonanta ne kii de moom daal dinay feesal yaari loxoom ya ci yiw ma ngoog ñaari yoxoom yépp feesal na ko ak yiw kon gis nga wàccuwaay ak ngëneel bi nga xamante ni nekk na ci kàddu gi di la xawla wala quwata illa billah ak yeneen kàddu yi nga xam ni rot na ci xadiis bi bu ko defee kon mbokk yi dañuy daldi teg fi sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal nu tawfiq defal leen ko defal nu taysiir defal leen ko defal nu aafiya defal leen ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.